yaa xayra dayfin ataa bil bishri wal madadi ahlan wa sahlan wa tarxiiban bilaa adadi. ci biir jataay yi nga xam ne daaira muqaddamatul xidma mi ngi koy ànd ak mbokki jullit yi ak mbokki taalibe ci jàngale ak yeete tey nag moo doon ñaareelu jataay yi ñu jagleel. laaj ak tontu ci biir jataay waxtaan yi am ci kor gi ñu fa yéene cee ànd ak sëriñ Cheikh Bousso Hassan du jariñu da ko xamle ndax jaar na ci jataay bi ay yoon indi fii ay tontu ci ay laaj yi nga xam ne bàyyikoo na ci mbokk yi kon duñu jariñu guddal dañuy bàyyi mu nuyoo su nuyoo ba noppi nag ñu sóobu ci liggéey bi kon sëriñ bi bismillah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 amma baadu asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu mbokki jullit yi mbokki talibe yi ñu ngi leen di nuyu ci nuyoob lislaam bu sell boobu di leen ndokkeel ci weeru tedd wi ñu toll muy saxru ramadan al muazzam di saxrul amaani wal muna wal di ñaan suñu borom subhanahu wa taala mu dafa ñu tawféex ñu mën ko àggale ci anam gën a sell dem nangul ñu suñuy jaamu yàlla ak suñuy taxawaay ak suñuy koor di di ay yëkkati ay siyaare yu sell ak yi ñaan di ko jëmale ci alxalifatul am cheikh Mouhamadul Muntaxa xafisahullahu taala wala am ñaan suñu borom sàmmal ñu ko bàyyi ko suñu kanam ba mu àggale ko séen koo liggéeyal lislaam séen koo liggéeyal cheikhuna xadim radiallahu anhu yàlla fañ tawfeex man ko ànd moom di yëkkatiwaat ay cant yu yu wér ñu jëmale ci mbooloo mi nga xam ne ñooy saytu liggéey bi muy daayira bu Muxaddamatul Xidma di leen sant bu baax seen liggéey bi ñu liggéey sëriñ bi ci toolu xam-xam yaatal am njàngam saarale lislaam di sant suñu borom sama dox daal ñu defal ñu fekkewaat jataay yi muy jataay xam-xam ñaan mu defal ñu ci tawféex damay ñu fekkewaat ko ay ati at di àggale suñuy liyoog suñuy saari ci Cheikh Afia mu jot lu ñu mboolem yëngu ci biir liggéey bi di tàmbalee suñu kàddu rek ci ay ñaan yoo xam dañ koy jëmale ci jàmbaar bi lislaam jàmbaar alxuraan yoo xam ne nàkk nañ ko tey ñu sëriñ Moustapha Gueye bari xamoon ko ci liggéeyal alxuraan doon kenn ci jógee sëriñ Mountakha yi nekk ko njaareem daale sëriñ moom ba siisi liggéey liggéey bu rëy ci alxuraan suñu borom euh, woo ko ci weew alxuraan bi incha allah daal na suñu si alxuraan ñaan suñu borom doon liggéeyal alxuraan lépp yàlla fay ko ca may dana ko bon wut liggéey boobee di sant Serigne Cheikh mi nga xam ne moom la àndal liggéey bi eh, di am yaakaar ne lépp lu ci nar a manqué rek incha allahu taala danañu ko mën a wattu lépp kon buñ ko buñ ko waxee rek état yi ay laaj la ak i tontu yoo xam ne dañ ci def suñ képp kàttan rek te eh, ñu koy faral di waxee rek ñu koy sukkandiku ci al fiqhul maliki yi nga xam ne moom lañ sëriñ bi dénkoon aleykum bil malikiya innaha mutaharatun wa kama xaala radiyallahu anhu kon laaj yi fi tontu yëpp yu ci bari muy sukkandiku ci téere yi maliki yi ak mbindum sëriñ bi ci boppam kon bismillah sëriñ Seex jërëjëf sëriñ bi ci nuyoo bu matal bi laaj bi ñuy tàmbalee boroom day laaj ne sunu boroom dafa wax ci alquran ne fa kuli washrabi wa qarri ayna fa imma tarayinna min albashari ahada فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا من الله يجدال لبد ñu firil ko waaw sëriñ Seex nag laaya jooyu ñett laay yooyu ab jukki la ci e, laay yu gudd gudd yoo xam ne na nga tàmbalee ci waskul fil kitaabi maryama iz intabazat min ahliha makaanan sharqiyya ci aaye fukk ak juróom benn ci suuratu Mariama ba ca aaye ñaar fanweeri jaag ñeent muy aaye xaw takk yoo xam ne lépp ci xisatu sayyidatuna Mariama ak bi Iisaa di juddu ci lay wax nett ca wax yu bare bare bari ba si fii nag nga xam ne fi la sayyidatuna Mariama tolla woon ci war a am war a wasin Iisaa mu amoon jaaxal loolu nag ndax ni ko aaye jiite waxee yàlla dogal may ko doom te mos ko seq ak kër mos am kër mos seq ak góor dara ba noppi am doom jaaxaloon ko lool <clears throat> mu ragaloon ne bu ko defee mën naa mu yedd ko ci ba tax na ba wax koo jotee mu jaaxle lool dem ci dàttu garab boo xam ne ne tàngal ba la di fa di fa dimbali ko ngir mën a mucc ngir mën a euh, indi doom jooju mu war a andi foofu la ay yi ñu toll fii loolu wax ba mu àggee foofa nag euh, am ku ko woo ku ko woo nag ulama wu tafsir wuute nañ ci wax na ni Jibril moo ko woo am na ne Isaa moo ko woo wax ko ko fa kul yi waxtura bi maanaam lekk te saxal dal li muy lekk mooy def na ko nga yëngal tàndarma bi ay doom dana ci wadd am yoo xam ne ay mënax lay am na ay mënax lay doon nga lekk fii nga toog suñu borom daal daf génnal am ndox moo xam ci ngay naan kon am nga loo mën naan am na loo mën lekk te doom bii ngay indi tam na sa xel dal xam ne doo ci am genn kersa ndax insha allahu taala moom bu génnee mooy defaadal boppam mooy waxal boppam li ko indi ci àdduna kon ku lii wasule bi waxar yaxay nan te fa imma yenn min al basari Euh, bul boo seen nit ñu jub yooyu dina la neel tey du ma wax ak kenn tey du wax ak kenn dax nu kan limal yow ma insiyan mooy ku ñëwit nañ ko junj rek wala ma tafsir wax ne li tax du wax ak kenn seetlu nañ ci ñaar bi ci njëkk mooy insa mi nga xam ne mooy jub noonu mooy waxal boppam li ko andi ci àdduna su ko defee setal derub yaayam mariama alayhi salaam ñaareel bi mooy wax ci wax jëru ko ndax ñu koy laaj li tax nga indi fi doom ji ci bari ay nit lañ ñoo xam ne ñoo bëgg a garante ak dàggasante noonu la jëriñoo tontu kon ñaari sabab yi tax nañu mën a ko jëru ngay wax kenn noppi rek te te lii am am su ko defee bu amee ba noppi rek moom mii ñëw muy ne dana mën a waxal boppam li nga xam ne moo ko indi ci àdduna na mën a safal boppam tam kon Serigne Cheikh aaya yooyu ci surtout Mariama ak Isa daal ci la aju xam ngeen ne sëriñ bi radiyallahu taala anhu tënk na ci xasida gu rafet gi def ci sayyidatuna Mariama mu muy fës bi bi xasanaat jooju ñu ko tënkee ci xas yi ñu ko tënkee ci ci fukk luy wasra bi waqari xanan la sëriñ bi tënk xasida gu rafet googu wax ci lu bari ci darajay sayyidatuna Mariama ak i xar baaxam ak kimtaanam wallaahu muwaffiq lis-sawaab fii moom day laaj mu ne lan mooy àtteeb koo xam ne dafa faat bàyyi ñaari kër doom ju góor ju ne kër gii kat baayam da ko koo jaayoon laata muy faat soxna si ne geneen kër gi moo ko moom waaye nag kenn ci ñoom ñaar muy doom ji walla soxna si amul ay seere yuy wane ne yaa moom kër gi waaw sëriñ Saare kooku day mel ne duñ jàpp waxi kenn ci ñoom ñaar seen wax mu si jàpp ndax euh, kuy woote daal da war a am seere ginnaaw kenn mënu seen di seere nag la fa sos rek mooy seen wax ñu teg ko fële ñoom ñaar te miraas alal bi ñu ko war a ñu ko war a sédd ñu sédd leen ci kenn li nga wax am na mu ànd ak yow wala ñoom ñaar ñu ko seq fekkee ñoom ñaar ñoom seq miraas ma wala ñeen ko saqal ñëpp nangol nañ leen seeni wax fekk si leen ca boobaa dama des na ko nangu waaye masaayil yu mel noonu lu ci ëpp euh, kii atte moo ko mën a moo ci mën a dogu alxaadi juge bi moo ci mën a dogu atte waaye kii mufti kii def ifta moom li mu ci man rek mooy euh, laa laabire leen daal ñu waxtaan seen biir ba déggoo ñu doon tàmbali relation fekkee ne mënuñoo déggoo ci genn anam kenn ku nekk li nga jàpp fa séenoo koo bàyyi la fa sës mooy ñu dem ci mahkama islamiya muy tribunal boo xam ne am na kuy àtte ci lislaam mu àtte leen ndax qaadi ah, bi moom dana am ay jumtukaay yoo xam ne mën na caa jaar ba gëstu ka ca nekk ci dëgg ak ci nekku dëgg bu ñu àggee foofu nag loola qaadi bi rek moo fi sës waaye xëy na ki xam ne moom la ñuy laaj muy borom xam-xam bi nekk seen wet mën naa am ay waxam du mën a tàggale seen diggante dara ay laabir yu ñu leen mën a jox rek bu ñu ci jàppee baax na fekkee nag ay laabiram doyu leen dafa sës ñu dem ci kuy àtte mu àtte leen ci la mu àtte rek loolu mooy wéy wallaahu muwaffiq as waaye ngi nii joo xam ne nee na dafa dugg ci jàkka yi fekk ilimaan ji nekk ci jotaay bu njëkk bi mu ne ndax kon bu ñëwee day ànd ak imaam jàng taaya wala nu muy def waaw su leen seet boo ñëwee fekk ilimaan bi julli am lu mu rawee li ngay njëkk def mooy takbiratul ihraam waaw nga def kàbbar boobu moom boo ko defal ci julli du baax loolu la ñu bari war nañ ko bàyyi xel boo ñëwee bala ngaa ak ilmaam noo toll rek nga taxaw ba nu jonn wax allahu akbar joxam day ànd ak yéene julli gi boo ko defee ba noppi nag nga fekk fa ilmaam toll nga ko fa fekkee da ko fekk mu ne ci rukkoo nga nga daal di waxaat dee nga allahu akbar joxam da nga koy rukkoo waale fekkee da nga ko fekk ci ab sujjóot nga wax allahu akbar dugg ci sujjóot ba fekkee nii mu laaje moom da ko fekk muy toog di taaya boobaa bu defee takbiratul ihraam ba noppi rek day toog moom moom moom maamam boobu noonu daañu fi ilimaan jiitu ko day toog rek fekk ilimaan bi ca taay ja ànd ak moom ca taay joojee bu julli ko jeexee moom mu bu ilimaan sëlmalee mu fay la ko desee tënk daal mooy day toog moom it ànd ak ilimaan di taaya bu bu taayoo ni dara war a ko ci ndax taay bokk na ci li nga xam ne ilimaan mën na ko gàddul maamam kon bu toogee tam bu taayoo tam dara newu ci mën naa taaya rek ginnaaw moom bal muy toog toogaayu bu nen noonu rek bu taaya bu ilimaan di àggale julli gi mu daal di jóg la ko la ko lawoon ci la ko rawoon ci julli gi wallaahu muwaffiq day laaj koo xam ne dafa ñëw ci julli gi ajuma fekk ilimaan ci jataay bu mu jub mu ne ndax kon day wala day yéene julli tisbaar waaw sëriñ Sadio mooy day yéene ajjuma day yéene ajjuma waaye nag bu ilimaan ji sëlmalee moom ñeenti rakkaa lay julli ndax ginnaaw fekkiwul benn rakkaa bu ma sëkk boobaa moom day julli ñeenti rakkaa muy tisbaar waaye nag yéene ji moom àdduna dugg ci julli gi loolu ñu ko sukkandikoo ci addis boo xam ne abdullah ibn umar radiallahu anhuma moo ko solo boo xam ne in adrakta min al jumuati rakatan fa adif ilayha uxra wa in adraktahum julusan fa salli arbaan rawaahu al bayhaqi mu wax ne boo ñëwee bi julli ga àjjuma mu toll ci rakkaat bu mujj ba nga am na moom rakkaat boobu bu sëlmalee da ngay julli da ngay jóg àggale benn rakkaat rek muy ñaar ba ñuy fat ko mu nekk taay bu wala mu rukkoo ba siggi ci rakkaat ñaareel ba taay eh, ba da ci sujjóotee wala mu nekkee ci am julli gi raw na la te da nga am nag moom bu sëlmalee nga julli nga jóg andi ñeent rakkaat yi sëkk mu muy tisbaar loolu la borom ko waxee wax ci bi noonu kon jumhuurul fuqahaa loolu la ñu wax doon tam yenn fuqaa yu wax wax ne comme alxanafiya ñu wax ne bu fekkee ci julli gi dara rek lu mu néew néew moom mel na ne kon jot na àjjuma ji waaye li gën a sukkandiku daal mooy li jumhur bi wax mooy bu ilmaan day jóg andi ñeent ñeent làkkaar yu ma kii day laaj mu mooy àtteeb koo xam ne dafa am kafaara yi koor yu bare bari mu waaye nag moom leer na ko ne daal loolu mënut koo matale kafaara yi mënu koo matale mu ne kon nu muy def. waaw sëriñ Saada kafaara daa bokk li nga xam ne day war euh, jullit boo xam ne dafa dog ci weeru tay ko kooku day fay bis mu dog ba noppi ñu teg ko kafaara la kafaara na ngeen ko xamee ay anam yu bari la xëy na li ci gën a siiw léegi rek mooy leelay juróom benn fukki miskin kenn ko nga leel ko euh, mudd wala nga woor ñaari ñaari weer ci bis bi nga dogal dag noonu kii laaj nii bu fekkee kafaara yu bari da ko waroon du tey yëpp da ko war a def rek ndax dafa am ñu ngi ko sukkandiku ci addis boo xam ne dafa am sànq ñëw ci yonent bi saa sallam ne ko alkunaa yonent bi ne ko loolu mu ne ko dama ànd ak sama soxna ci bëccëgu weeru koor tay ko mu ne ko da ngay kafaara kon ay kafaar la ko diggale woon mu kafaara ci genn ci ñetti at yooyu muy leel juróom-benn fukki miskin wala jamono yi jaam di am goreel ab jaam walla mu woor ñaari weer ñu ngi ciy teg sax ne xista bi ni mu demee mooy kooku daf ne ko man de mënuma woor tey maanaam ma leel ay miskin mooy lu ma leel benn saa sam ne ko toogal bu mu toogee ba si yàgg ñu indi fa aw ñam mu ne ko demal nga leel ko miskin yi mu ne ko sama kër de bàyyi yi yàpp ma din ma dina gii dañuy yaatu yaatu sama waa kër ki ngeen ne fi aajowoo lii yéen tamit nag ko man nga ko yóotu saa kër ñu jëfandikoo ko foofu nag mooy man soo wal xilaaf bi ci fuqahaa yi wuute gi ñu wuute foofu ñaari foofu foofu la juddoo am ñu ne eh, bu fekkee mënoo kafaara gi kon dalay wàcc waaye ci masabul maaliki li mu sukkandiku moom mooy kafaara gi du ko wàcc kafaara gi moom faaw da koy war rek doon te amu ko jamono yi ñu toll tam saa yu ko amee mu def ko bu demoon ba génn àdduna te amu ko te defu ko tam alal dama fa bàyyi bu fekkee dénkaane woon na ko wala moo waxoon ko nii bañ xam ne kafaara war na ko kon bala ñu koo miraas war nañ ci génn kafaara googee kon daal seen seex tënk kafaara moom du wàcc du wàcc jaam bi fekk def ko rek da koy war euh, mënu ko mënu koo def te amu ko nag saa yu ko amee rek mu def ko bu yàlla dogalee mu génn àdduna te bàyyiwul àll bi ko mën a def tam nag boobaa suñu borom mën na ko jéggal waaye daal lu nekk ci aw loosam la woo xam ne nii da ko war war koo génne saa yu ko mën a génne ko lu mu ko gën a gën gaaw génne nag mu waaye fekkee mu ko gaaw génne tam saa yu ko amee rek génne ko waaye du ko wàcc mukk ci li Malick yi wax wallaahu wasalaam jërëjëf sëriñ bi kii day laaj mu ne lan mooy àtteb góor goo xam ne dafa takk jigéen siñante ak moom ne dootul takk keneen nee na ñu dem ba ca yàgg mu dem takku suuf takku suuf takku boo xam ne daal aaw bi yóbbu ndax bañ mu yóbbu ko tribunal mu ne lan mooy àtteb sëy boobu ak sëy boobu bu ca doom jullee lan mooy àtteb doom waaw sëriñ Cheikh de sëy ñaare bi bu fekkee arkaanu nikaax yi daje na ci maanaam sàtt sëy daje ci te sàtt yi mooy kilifa fas ko ñu joxe can mu am ay seere mu am siixatam mooy fas ko yooyu bu ca dajee rek moom sëy ba mën naa wér ñàkk ñu ko ñàkkee wax soxnaam su njëkk si du tey sëy bu wér na ndax lee beneen beneen masala la beneen mbir la moo xam ne moom soxnaam su la ko seqal mooy sàtt bi sàttante woon moom ne ko du ma takk kenn sa kaw loolu dam da ko waroon wormaal ndax yonent bi saa sallam waxoon ne eh, axaqu suruuti an yoffa ma saxlal kum bihil furuuti sàtt yi ngeen war a gën a respecté gën ko wormaal mooy sàtt boo xam ne dañ caa jaar ba am ca soxna ginnaaw soxna si ñu ko mayoon nag muy aawam boobu li ko mayoon mooy li mu sàttanteewoon nag moom bañ bañ ko takkal ab ñaare ak ab wujj maanaam kon bu takkee wujj bi la fa sës mooy soxna si nga xam ne moom mooy aaw bi am na sañ-sañu laaj passé laaj ñu passé ko loolu muy ragal yóbbu ko tribunal kon moom sañ soxna si am na sañ-sañu yóbbu ko tribunal fekkee tribunal bu lislaam boo xam ne lislaam fi àtte atte ko mooy tàggal leen ñoom ñaar te boobaa faaw moom ay ay conséquence ndax maanaam bu fekkee am na njaboot ak la ca war yëpp ci ay dund dañ ko koy daal di sant moom góor bi mu war na ko diggante mu soxna soosee waaye daal ci tënk mooy soxna si mu takkaat bu ñaareel gi ñàkk ko soxnaam si ñàkk njëkk si ñàkk yëpp bu yàq sëy bi bu fekkee am nay seere yeneen seere fekkee sëy bi seere woon nañ ko rek te ay seere lu néew ni mën ñaanal maandu wala mbooloo mu bari wala mu loola moom sëy boobu baax na moom sëy bu ñaar bi baax na sëy bu njëkk ba tam tasagut la koy taseeg mooy soxna su njëkk si moom eh, xam ne sàrt bu sàrtante woon ak borom këram bi warmaalu ko boobaa am na sañ-sañ yóbbu ko ci yoon ñu tàggale leen oh, mu te parce que moom soxna si du ci ndax sàrt bi dañ ko sàrtante woon waa ji nag mën naa am bàkkaar ci li mu def ndax daal ginnaaw daa sàrtante woon moom ci yéen di saa waxoon na ngeen warmaale seen sàrt moom kon mooy mooy am na moo yàlla duñ def ñàkk warmaal sàrt bi waaye jotewut ak sëy bu yees bi mu fas moom mën naa doon sëy bu wér a wér doom ji ci juddoo tam doom bi yoon lay doon doom bi dugg ci sëy bu wér a wér lay doon ndax sàtt ñu ci daal am ay soxnaam yëg ne takk na soxna moom liñ sàtt mooy mu am ay seere soxna su muy takk daal na muy seere rek donte ay ñu yëguñu takk na soxna waaye am nañu seere woon ne moom takk na soxna rek daa tolloo lu gën a rafet nag mooy ñi nga nekkaloon di sëyeeg ñoom ñu sa soxna moo xam kenn lañ wala moo xam ëpp nañ kenn boo dugg ci lu mel noonu yëg ko ndax bokk ci imanité bokk ci ak ñaar bokk ci ñàkk nité ak ak imanité insaniye ngay def lu mel noonu si waa kër yëguñu ko wax dëgg yàlla rafetu ci ànd te suñu borom soxna dañu di dikk ci alfaan ne wa ansiruhunna bil ma'ruf seeni soxna na ngeen di ànd ak ñoom ci ànd anam bu rafet te bokk na ci anam yu rafet yi di décision yu mel ni boo koy jël ñu ko ñu ko ba seen xel dal ca nga doon caa dugg loolu daa tax seen diggante maa rafet teewul nag boo xëccoon sàpp boobu dem def sëy bopp tam dafa ko nii te moom ci wàllu na da ca sës rek mooy soxna su njëkk si moom mooy seet ban ban taxawaay lay taxaw day jël li ko yoon may wala day muñ loolu ànd ak ànd ak borom këram bi gis naa ne nag mu gën a rafet ndax xëy na moom moom defagu dara moom moom soxna si benn bàkkaar la ko fekk ndax moom sàpp moom góor gi moo moo moo moo woyal sàpp bi waaye soxna si moom deful dara kon yàlla dogal nañu amoon ñu ànd sëy ak diir sëy moom lépp lu koy saxal rek moo gënal yàlla subhana suñu wax dafa def benn addis ni ab xadul xalaali ilallaahi ak yàlla li mu dagan lépp lu mu ci gën a bañ mooy passé kon nag lépp luy saw passé di am rek dañ ko wax di moytu bu baax a baax kon soxna su njëkk si muy aawa bi léegi liñ koy conseillé daal nit ko labiré mooy ne muñ rek te xam ne mën naa am soxna si ñu takkaat mën na ko ba jàqal dara wallaahu ma faq istiwaab jërëjëf sëriñ bi kii moom day laaj mu ne dafa bëgg daal ñëw fiiril ko laaya ji suñu borom di wax ne fa anzala allahu sakinatahu ala rasulihi wa ala almuminin wa alzamahum kalimata taqwa wa kaanu axaqa biha wa ahlaha wa kaana allahu bi kulli shay'in alima waaw sëñ Cheikh de aaya boobu maanaam ab dog la ci aaya ñaar fukki juróom-benn ci suuratul Fath ma nga tàmbalee ci is jaala allazina kafaru fi qulubihim alxamiya xamiyatal jaahiliyati al ula daal ne fa anzala allahu sakinatahu dooru ñëw nag mi ngi nekk ci biir contexte li ñuy wax bay'atu ridwaan bay'atu ridwaan li ko waraloon mooy yonent bi saa salaam daa am jëmmi jamono mu dëgg bëggoon dem omra bi mu demee ba jege màkka xuray su ne ko duñ la may nga dugg ci kaaba gi ren duñ la may nga ñëw màkka ren daal mu yebaloon nag Osman radiallahu anhu ngir mu waxtaan ak ñoom ba mu demee ne ñu tëye ko ñu siiwal ne Osman yéefar yi rey nañ ko yonent bi saa salaam woo saxaaba yi jaayante muy jaayante bu siiw boobu siire ñu ko tudde bay'atu ridwaan te la xew-xew bi amee woon bañ jaayantee nag ñu ñëpp fa défendre seen bopp fa séenee fay Ousmane moom ñu téye far bi ko Quraysh yëgee xam ne julli di waaj na ngir songu si leen ñu yebal ay ndaw ne leen ngeen dem waxtaan ak Yonent bi saa sallam jéem a seet ni négocier ba déggoog moom ba ndaw yooyu ñëwee nag cere li xewee maanaam ba ñuy bind contrat bi Yonent bi saa sallam dafa wax ànd yi ne ko bindal ne bismillaahi rahmaani rahim yéefar yi ne ko duñ loolu nanguwuñ ko ndax bu ko bind ndax gëmuñu ko ba mu bindee ba nag bëgg sañee suuf muhammadu rasulullahi ñu ne ko loolu tam nanguwuñ ko ndax buñ gëmoon na yaa yonent bi yàlla kon coow lu ak si fii yonent bi fekk si leen ci ne ne àlli sayyidina ali faral bismillahi rahmaan rahim bindal tam muhammad ibnu abdullahi rek xam naa ne man maay ndawal yàlla eh, suñ borom di nettali xissa bi ne fa ansalallahu sakinatahu suñu borom wàcce na ak dal ci jullit yi ba jëfantewuñoo yéefar yi ci ñuy jëflanteeg ñoom ndax bu ñu leen toppoon ci seen taxawaay boobu mën naa am kon jàmm du mën a am mukk ndax kenn ku ne boo bu moyoon fa mooy rek ñii ne ñu bind lii ñee ne ñun bi ngeen bind ko coow lu waaye jullit yi la yàlla defal ak dal ba ñoom ñu nangoo bàyyi loola fekk si yi fekk si yéefar yi seen bëgg-bëgg boobu mu ñàkk bind loolu ci contrat bi loolu nag suñu borom da xamal ne xéewal bu mu defal jullit yi ndax bu amul woon mën naa am jiw am te kon résultat yi am ginnaaw bi a am ndax bañ entreprenariat bi mu amee rek ci déwén si rek déwén tamit saa si la ñëw màkk ubbi ko far dugal lépp ñëpp dugg ci lislaam kon mu ngay wan foofu nag xéewal la gum leen defal koo xam ne nii ñoom yéefar yi amuñu ko ndax xam yi mooy jombul dañoo jombul laal di bind loolu di di reconnaître ne Seydina Muhammad mooy ndaw yàlla jombul bu ñu jombul gëm seenu yéefar bi nekk moom la alxam li xam yi te jaahil ci maanaam ñëw ñu njëkkoon lislaam bi jiit muy ñëw dañ naan doxale rek loolu lañ doxale mooy ci maanaam nu ko weddi yàlla waaye jullit di ñoom ñoo gëm yàlla ànd ak dal ba nangu contrat bi daal ni alzamahum kalima taqwa kalima taqwa ni ko mu fassiru ni mooy kalimatu laa ilaha illallah moom la ko jullit yi la ko yàlla defal ñoom ñu gëm ko waaye ñi nga xam ne gëmuñu lislaam moom yàlla dafa leen tafeex ñu mën a gëm baat boobu kon moom la loolu aaya boobu ci xeste boobu la la ñëw Serigne Cheikh di nettali fa mujj ak fa nga xam ne résultat yi juddoo yépp ci lépp delluwaat dellusiwaat ci xéwal loxo ni julli yee ko xéwloo wallaahu ma fa kii moom day laaj nee na jigéen ñi doo xam ne day liggéey ci benn restaurant bu nekk ci benn école publique di toggal gone yu ndaw yi añ ci weeru ko nee na nag ñamu day des mu jël ko yóbbu këram te kenn jox ko ci ndigal ndax xam na ne su ko ko bàyyee dañ koy tuuri rek mu ne kon lan mooy àttab loolu muy def waaw sëriñ Cheikh de li feeñ mooy li mu def dara néew ci lu ko wóoree ne lii moom bu fi bàyyee dañ koy tuuri rek boobaa moom moom mu ne moom fekk fan tuur jël ko ñoo yem rek xanaa li ci nekk daal mooy ginnaaw daa sëq nit ñi ab daa sëq aw nit ab liggéey ay kilifaam maanaam la gënoon rafet mooy xamal leen ne lii ñu nar a tuuri ko man soxla naa ko ndax loolu daan satal ab dara ndax bu dee def lu ñu nar a tuuri mu dem jël ko yóbbu këram naa am bis ñu tuumaal ko ne ku liggéey da nga koo yóbbu kenn ko woon tuuri ngir satal ab dara daal gën a rafet mooy mu yëgal la ay kilifaam yi liggéey ba ne leen lii ñu nar a tuuri ko soxla naa ko te bu ñu ko jógee joxee ndigal ne ko lépp lu nar a tuuree te rek mën nga koo jël boobaa te xel di gën a dal te te lay gën a satal ab dara te ab waxtu wu nekk rek daa war a def loo xam ne ab dara set wut te fekk lépp loo xam ne naa yàqaat dara dañ ko war a moytu dañu dugg ci loo xam ne daal bu ca duggee euh, mën naa am tuumaal ko loo xam ne xëy du nekkul ci moom sax waaye moo taxaw taxawaay ba ba ba ñu tuumaal ko tuumaal te loolu mën na mën naa andi man mën naa andi bu ko yàggee def xëy na ay noonam wala ñeneen ñoo xam daal ànd na moom ci loola mën nañu dem ba jaxase ko kilifaam neen gis ngeen ñoom mu yóbbu këram fekk ñoom woo mën naa bu koy buróon sam dañ ko tuuri ñoom ñàkk kaa xam ak yooyu naa daal ak ñàkk wóoral di seen diggante ba tax na li gën a rafet daal mooy waxtaan ak ñoom xamal leen ne lii buñ ko naree tuuri moom soxla naa ko bañ doxal ko ci ndigal su defee saa yu ko naree tuurati moom mu jël ko yóbbu ko am njabootam wallaahu muwaffiq lis-sawaab moom day laaj mu ne koo xam ne dafa takk gàllaaj bu ñu ëwee jarub gaynde mu ne ndax kooku bu jullee ak julleem Seex day ab der derub medd de naa loolu rek waroon laa sax darut medd day fuqaaw dañu ci wuute am na fuqaa yu gis ne buñ ko xasee sëbét mooy defar ko ba mu baax rek dara nekkatu ci nañ suñu ko jëfandikoo ci anam yëpp ay yema euh, jildin ihaabin duubi xaar faqat taxu da am na lu ñu ci xadis yonent bi ne bépp dara boo xam ne sëbét nañ ko mooy defar ko ba mu set ba xeeñatul dara donte darul medd la te mën su ko jëfandikoo ci ko sol wala di ci def aw ñamat loo neex daal ci xeet jëfandikoo ndi waaye fuqahaul maalikiyya nag boo delloo ci xalil ñoom dañoo gis ne dar bu mel noonu daal mënees na koo jëfandikoo ci yu wow dañ ci ay dugub ak xeeti loo xam daal wow la waaye sëñ daal dañ ci am ndox am daal gis nañ dar boo xam ne daru meddi la lu ñu ko defar ak lu mu baax baax rek la gën mooy bañ koo jëfandikoo ci saw yaram booy julli bañ koo sol maanaam boo ko defee mbubb wala lu mën a lu mën a ànd ak julli gi tey nga bañ caa def lu ñuy dunde lu tooy lu mel na am am ndox moo xam ne waaye lu wow dañ ci dugub wala ceeb wala yu mel noonu mën na ko kon Serigne Cheikh day mel ne ñaari eh, ñaari taxaw daal fukkaayu taxaw ñenn ñi mooy ñu gis ne dañuy sukkandiku rek ay yuma ihabin duubi xaal faqat tahurat kon der buñ sëbëj rek mën si jëfandikoo ci am ñoo xam ne xëy na min baabil wara ci sàmm ci lañ tàqale ñaari wax na ne fekkee dara bu mel noonu la duñ ko sëbëjee manis na koo jëfandikoo ci aada yi ak yu mel noonu waaye ni mu waxee nii di ko def ci ab téere di ko xam na ko julliwaale kon day mel ne bu ko banee moytu mooy mooy li gën a dal xel fekk dara boo xam daal dara bu laab la mu aw ci ay téere moo gën a wóor wallaahu musaw kii moom day laaj mu ne ndax ku dul ab jullit dagan na mu dugg ci jàkka wala jumaa waaw sëñ Cheikh da li lëng ci almasabul maliki yi mooy sëñ te dugg jàkk ko nga xam dugg ko ci lislaam sëñ dugg jàkk dont la jaar jàll sax boo demoon ci muxtasaru xalil ba muy lim yiñ tere koo xam ne euh, wut ñu wut dugg boole na ca ku mel moom la waxee ne du xoolu musjidin wala mu taas ka kaafirin wa in asina euh, muslimun wa in asina loo muslimun maanaam da ca day lim ñi nga xam ne eh, sëñ ñoo dugg ci jàkk boole ca ku koo xam ne nga war a sangu fàtte sangoo ko ak ab yéefar mooy moom lay laaj nii ab yéefar wax na ne warta dugg ci jàkk fekk amul donte ak jullit ab jullit ko may sax donte jullit lañ koo may mu dugg jàkk sam sañu ko mu settee ca rek eh, daruura waral ko maanaam ñu dem nga xam ne daal kii aajoo woon nañ ko jàkk ji anam goo xam ne moom rek moo ko man moom bi nga xam dugg ci lislaam li ñu soxla ci biir jumaa ji wala jàkk ji moom dong moo ko mën a def kon boobaa moom dara war a jooju muy ñàkk tax googu euh, danañ may danañ ko may mu mën a dugg ci jàkka ja wala jumaa ja def fa la muy def bu jeexee mu génn waaye bu fekkee daafaa ñëw rek ngir bëgg a toog loolu ci almasabul maaliki yi mayewuñ ko ndax daanaka ñu ko sukkandikoo ci innamal musrikuuna najasun falaa yaqrabu masjidal xaraama ba'da aamin haazaa aay boobu ñu ngi sóor tawbati ci lañ sukkandiku am fuqaa yoo xam dañ ko yaatal ci jàkka yépp am ñoo xam ne dañ ko tënk ci asma al masjidul mooy jàkk ji nekk màkka rek joojal ab yéefar sënte dugg waaye jeneen jàkk ji dul moom wala jumaa ji dul moom ab yéefar mën na caa dugg am ñu diggu doomu nag ñu diggu doomu mooy almalikiya ñu wax ne ab yéefar sënte dugg ci jumaa wala jàkk li fekk amu ca ndigal te ndigal la la tax ñu san ko koo may mooy am liggéey bu fa nekk boo xam ne moom dong ko man moom yéefar bi moo man liggéey booba keneen mënu ko dugg ci te mënu su ko ñàkk ci biir jumaa ji wala jàkka ja kon mënees na ko may mu dugg def loolee bu jeexee mu génn wala sax fekkonte ne am na dugg ko man waaye moom mi nga xam ne duggagul ci lislaam moo leen ko dàq tey lan cay laajte pay mooy gën a yées mooy gën a néew la ñee di loolu itam wax nañ ne bu amee itam sañis na ko may moom koo nga xam ne duggagul ci lislaam mu dugg ci jumaa joon jàkk ja defar loolu muy defar te génn nga xam ne buñ ko mën a tënk daal dañuy wax ne may ko mu dugg daal toog nii rek ci ca ba bakkanam loolu mel na ne ci maalikee moom ànd nañu ci boo delloo ci Muxtasar Xaliil dafa fekk mu yaxal ko moom day laaj mu ne lan mooy àtteb sëy boo xam ne dañ koo takk te can nga àggul ca jigéen dañu takk waa sëriñ Cheikh da can mooy alal ji nga xam ne moom la borom kër bi jox soxna si mu bokk ci sàtt sàtt yi tax sëy bi wér sëy faaw ñu tudd ak can ak can am ci maanaam can googu nag li ci am solo rek mooy ki ñi may soxna si moom nangu ne dana ko joxe jël engagement bi daal waaye kan la koy joxe loolu moom wutaluñ ko waxtu mën naa am nag saa yu ko ma ne joxe ko dañ ciy sàttal can gi mooy na doon alal joo xam ne nii diñ sañ jariñoo la ab jul sañ na ko jariñoo mu doon alal ju laab te mën koo jariñoo tey saa yu ko soxla soxlaa mën ko koo jox bu fekkee can la boo xam ne nag la ko lu na a cane day àll joo xam ne mën naa sotti ko parce que ab terrain la woon wala mu doonoon marchandise moo xam ne bu yàggee mën naa yàqu wala yu mel noonu kon dañ ko dañ ko daal jébbal soxla si can bi saasi bu dee alal joo xam daal bu fa yàggee mën naa yàqu wala mu soppi ko kon li fuqahaa yi wax mooy dañ ko war a wax jigéen ji saas mën koo jariñoo ndax moo gën di ko tey bañ koo jox ba mu yàqu wala bu fekkee lu amoon bële la dootu ko am fekkee alal la nag alal lay alal rek moom ni mu toll lay toll nag jekk loolu moom gaawee gi du ci sàtt gaawee gi du ci sàtt mën na ko ko jox te saasa mën naa dem waxtaan tam saa yu ko jëkkoo jox ko ko fi nga xam daal fi la koy war a joxe mooy moom fi ñu koy war a joxe ak canam moom mënut a ñàkk mooy bu yàlla dogaloon ba kër bi gën a àdduna kon moom faaw jigéen ñi dañu jox ak canam saas soxna si tam fekkee wax na borom kër bi ne ko euh, lu wéet can gi bu baax tam da ko war a jox ci saas kon waaye bu loolu ci dara amul rek sañ nañu tudd can gi noonu rek bàyyi ko mu nekk seen diggante saa yu ko koo jox ko ko donte fuqaa yi wax nañ ne nag. li gën mooy bala laa wéet ak soxna si jox ko dara cat gi yëkkati bu ko mënta jox lépp it bu am loon ko ci jox cat nag sëriñ Cheikh ni ko xamee lu woyof la ci lislaam tax koo ndax daanaka li mu jublu mooy góor gi wane ne am na pëste fi séene soxna si ñu koy jox li ñuy wax ab rams rek la day wane ne rek am na décision ci soxna si ñu koy jébbal daal insha allahu taala li war ci moom lépp tey àq na jëm kem kàttanam su dee alal jooju mu yëkkati ko dox nag moom lañ tuddee can gi moom nag ñu ko waxee woon léegi gaawe gi ak yeexe gi du ci sàtt ci am solo rek bu fekkee du alal du yàqu moom mënees na koo yeexe waaye nag mën naa ak foo xam ne faaw da koy jox mooy bu yàlla dogaloon borom kër bi génn àdduna ba dañu ko miraas dañuy génne can bi kon bu soxna si da ko woon ne faaw dañ koy jox ak canam mu door wéeti borom kër bi waaw tam ab dañu am na sañ-sañ ci loolu wallaahu ma faq la kii moom nee na seen waajur bu góor daal su liggéeyee ba wàcc bu ñëwee du leen romb du leen nuyu nee na muy laaj ba xam ndax seen waajur moo leen war a nuyu wala ñoom ñoo war a nuyu waa kan waaw sëriñ sax da nuyoo dafa bokk ci àq yi nga xam ne ab jullit da ko amal moroom moroom yonent bi aleyhi ci benn addis boo xam ne tudd na ci juróom benn mbir kenn ku ne amal nga ko sa moroom jullit mu wax ci ne isaa laqiyahu fa sallim alayhi boo dajeeg moom na ko nuyu limaale nañ itam bu la woowee ci eh, invité limaale am na nga ko wujji boole woon nag tam bu sàkkoo ci yow nga laabile nga laabile ko bi ci soolee nga nga ndokkeel ko bu tawatee nga seetu ko bu la jiitoo tam nga gunge ko juróom benn àq yooyu daal ak jullit da ko amoon moom jullitam kon dañuy gis ne nuyoo moo jiitu sama doom jullit boo dajee moom da koy war a nuyu nuyoo nag ci jëf yu baax yi bokk bokk la la bokk yonent bi saa sallam waxoon na ne eh, du ngeen moo a dugg àjjana mukk te soppantewu leen te gëmu leen te du ngeen mën a gëm te soppantewu leen ndax du ma leen xamal loo xam ne bu ngeen ko defee soppante ñu ne ko axaka ah, yaa rasulallah mu ne na ngeen di nuyoo seen biir da ngeen fexe ba ku ñu gis sa morom nuyu ko ne ko asalaamaaleykum bu yàggee cofeel dox seen diggante te loolu bu yàggee dana ak gëm yàlla gëm yàlla moo dugal àjjana li nit di jaamoo yàlla mooy joxe aw ñam ak nuyoo kon daal ci la ñu gisee nuyoo lu am solo la ci lislaam luñ santaane la lu am bari tuyaaba la nuyoo nag ci foqaayu nuñ koy jàngalee dañ koy tegale ci kenn kam war masalan dañuy wax ne ki nga xam ne daa war daa war daaba romb ko toog moom moo war a nuyu ko toog nga xam daa ñëw tam fekk mbooloo ñu toog moo leen war a nuyu koo xam tam Eh, mbooloo mu néew itam bu ñu lomboo mbooloo mu bari ñu néew ñu ñooy nuyoo su ko defee nag nuyoo bi moom sunna la fay gi nag farata moom ñu nuyu ñu delloo ko ma mënta ñàkk kon ni mu laaja nag li waroon waajur bi mooy bu duggee këram mu nuyoo ndax yonent bi saa sallam eh, moo ko santaane woon ci loo xam ne ñu ngi ko jëlee ci benn saxaaba mu waxoon ne isaa daxalta ala ahlika fa sallim alayhi yubaarik yubaarik ko boo ñëwee sa biir kër na nga nuyoo sa waa kër nga leen nuyu ba leen nuyoo suñu borom dama dafa barke ci eh, seen njaboot loolu da dañ ko dénkaane woon ab saxaab moo ko dénkoon mel moom saxaabaam léeg-léeg nag borom kër mën naa ñëw yàkkamti fàtte ko wala daal am sabab boo tax tax nuyoowul kon xëy na moom wàcc na bàyyi na la waroon def bàyyi na la waroon def waaye nag ndaw yi eh, gone yi ne ci kër gi ñoom nañ dem nuyu ko nañ dem nuyu ko eh, ndax tam bokk na ci gone mooy nuyu mag kon bu fekkee mag daa ñëw fekk wala mu ànd ak mag moo moo a nuyoo moo njëkk a nuyu mag lu ñuy sànni ma saxiir alal kabiir yi euh, Seydina Abubakar Sadiq dénkoon na kenn ci àndaale ñu ne ko laa yasbaxka ahadun bi fexeel ba bu la kenn njëkk ci am nuyoo donte dañ ne kii a kii la war sax waaye yow fexeel ba bu la ci njëkk rek mooy daal yow donte gis nga ne kii moo la war a njëkk nuyu sax nga doon ko nuyu yow yow fexeel ba njëkk ko ci rek ndax jëf ju baax la. waxoon nañ tam ki suñu borom gën a jege yàlla gën a jege yàlla mooy kii njëkk a nuyoo inna awla naasi billaahi man badaa bi salaami kon daal sëriñ Cheikh kooku nga xam daa ñëw ci këram fekk ak njabootam toog li teggin islaam sant ko ko mooy ne nuyu njaboot bi daan tax yàlla barkeel ak njabootam bu ko fàttee nag wala ay am na ko jàpp ba def ko njaboot gi nañ dem nuyu ko moom ndax loolu lépp day rafetal ànd bi rek waaye bu kenn ku ne jàppee seen bopp rek mën ak ñagas ñagas dugg seen diggante te ki njëkk a ñu nuyoo moom mooy ki moo gën ki euh, moo gën ki ku njëkk ku wut ku njëkk a def rek moo gën moo li wallaahu muwaffiq lis-sawaab jërëjëf sëriñ bi kii moom day mu ne li tuddee al musabbaatul ashra mooy lan ci wérdu yu la bokk ci ahlu suuf yi ak al Euh, siiw na ci ñoom lool al imaam alxasali sax ànd na ko ci téeréem bu mu tuddee Ihyaa Ulumi Diin boo ca demee danga fekk mu andi ko ci euh, wax ne ku jàng al musabbaatul asr yooyu wax na ne alxudar kooku ñu tuddee alxudar ñu ni ak yonente la ñu ne ku baax la woon moo ko joxoon góor yàlla bu baax gu ñu wooyee Ibrahim at-Tiimi yi moom moo alxudar moo ko joxoon neen sax bañ laajee ibrahima tiim yi yow kañ la xudar jox almusabbaatul asr ndaa wax ne mi mu ko joxe ci kaaba ga booba ca kaaba ga laa nekkoon mu jekki-jekki am mbindaafoon mu ñëw mu sol yëre yu set wicc ana amee amee jëmm ju rafet ju taaru daal li may sa baat yooyu ni ma koy defee muy wérdu bu bari tuyaaba nag wirdu bu bari te boo xam ne eh, bokk na ci li sëriñ bi yeesal yeesal yi mu def bokk na ci yeesal yooyu fii ci biir taalibe yi biir murid yi xam nañ ko bari bari xam nañ ko te sëriñ bi moo ko delloo si yeesal ko ba ñu bari xam ko xam nga sa sëriñ Moussa Ka radiyallahu anhu rahmatullah alayhi eh, ngi wax ci marché bi mu defal maam Thierno borom daaru di wax ne moo ko joxoon al musabbaatul asr ci lay waxee ne moo mayoon fa daaru wërdaw xaadir ci daraj ci darajey sëriif abdul xaadir dellu may mu sabaatul asri dellu may ma xuus waxtal asri ñetti wërdaw yëpp maam Thierno moo ko joxoon sëriñ Moussa Ka muy wërdaw di mu sabaatul asri yi di wërdul ma xuus kon ñu gis nañ ci ab taalibe mën naa boole wërdaw yu bare bare ndax ñetti wërdaw yëpp maam Thierno ko jox muy metti lu nag làqu gi maam Thierno làqu ndax xéewul gu ne googu mu defal xam fu mu ko jëleeti ci tënk almusabbaatul asr day daa nekk juróom-ñaari mbir yoo xam ne nekk da ngay wax juróom-ñaari yoon masalan da ngay tàmbalee ci faatiha jàng ko juróom-ñaari yoon teg ca sóoratu naas si juróom-ñaari yoon falax juróom-ñaari yoon lixlaas noonu kaafiruun noonu ayatul kursi noonu lu ci nekk juróom-ñaari yoon boo noppee nag teg ca subhaanallaahi walhamdulilah muy tasbihaat yooyu moom juróom-ñaari yoon teg ci asalaatul ibrahimiya asala allahuma salli ala sayyidina muhammadin kama sallayta ala ibrahim ba mu àgg juróom-ñaari yoon teg ci listixfaar juróom-ñaari yoon tëje ko allahuma ifal bi wabi wa bihim ajilan wa ajilan fi dunya fi diini wa dunya ma anta lahu wala tafal bina yaa mawla ma ma nahnu lahu an ahlun innaka xafurun alimun jawaadun karimun raufur rahim moom nga wax ko juróom-ñaari yoon loolu tax nit di ko almusabaat ñaari juróom-ñaar la yoo xam ne bu ci nekk da nga wax juróom-ñaari yoon ci Ihyaa moom foofu la ko imaamul Xasaali yemale yemale waaye daa mel ne sëriñ bi moom am na leneen lu mu ci dolli ndax bu buñ delloo ci euh, nusxa boobu nga xam ne moom la sëriñ Abdul Ahad moom Cheikh Souhaïbou bind ci ndigalu sëriñ Souhaïbou moom dolliwaat na ci yeneen muy euh, salaat goo xam ne dañ koy fukki yoon ak yaa jabbaar bu wax ko ñaar fukki yoon ak benn ak geneen ñaar boo xam ne dañ koy wax ñetti yoon mu tëje ñaan gi nag ñaan goo xam ne nga ci ñaan ci daraja yi baar yooyu nga doon wax yàlla jéggal la say bàkkaat ci wàllu julli yi la raw ak eh, àq yoo amal say morom te defoo ko loolu teñ ko tëjee kon daal dafa mel ne ñaari nusxa la wala ñaari nas la nas bi nekk ci mu Ulumuddin moom boolewu ci loolu ñu ko mottalee fii waaye nas bi ñor moom ci biir yoon wi mooy ndolleen yi ci nekk te loolu lépp aw yiw la ginnaaw sëñ bi bu fekkee moo ko ci dolli boppam loolu dolli aw yiw da ko jëlee ci benn riwaayaat loolu lépp moom daal ala kulli xaal ginnaaw ndonde li ci sëriñ bi la jóge rek ku koy jëfandikoo tam na nga ko ca boole ndax mu mat sëkk-sëkk kon daal wér dalu bu am njariñ boo xam ne al imaamul xasaar yi ba mu ko waxee da caa teg ne ku ci mën a boole eh, dugoo moom dangay am wér yu ma sëkk sëkk nag maanaam def nga lu ma sëkk wa huwa min al fadail allati jaddada cheikhul xadim radiyallahu taala kama xul naa bokk na ci yi nga xam ne sëriñ bi yeesal na ko daal ci biir yoon wi kon dénk ñëpp ku ko mën a jëfandikoo dañ koy jëfandikoo wax waxtoom nag mooy bu jant bëgg a fenk ak bu jant bëgg so ñaar yoon lañ koy jëfandikoo ci bisu boo jullee soo ba noppi ak boo boo jullee taksaan ba noppi ñooy mooy ñooy waxtoom bi tëwut ak alwidul maaxuus dara nag boo leen mën boole moo gën waaye xam nga nusxa bi bind dañ ne moom wérdal woo xam ne laa laa yus tax ne laa yus tax ne anu wérdul am benn wérdu mën a woo ko mën a wuutu boo demee fañ ko bind loolu lañ ko def benn wurdu mën koo wuutu kon day mel ne moom di ko boole ci wurdu yi daal lu am solo la naa moom mën naa wutu wuutu wurdu yëpp te wenn mën koo wuutu kon mel na ne ku koy defit doon danañ caa yem képp tam bëgg ci lépp yàlla dafa la ko ci wallaahu muwaffiq lis-sawaab kii moom day laaj mu ne yan mooy yi nga xam ne dañ koo sib ci koor waaw sëriñ Seex day ñu sib ci koor bari na ci almasabul maaliki yu xaw a bari na luñ sib nag mooy loo xam ne nii boo ko defee ñu bindal ci boo ko boo ko bàyyee danga am tuyaab waaye boo ko defee tam du la duñ la ci bàyyi gi daa gën gi dañ ko am tuyaab waaye boo ko defee tam nag tax ñu bindal la ci bàkkaar mooy yooyu nga xam ne nii boo ko boo waroon def ko tam duñ ne koor gi yàqu na waaye nag boo ko bàyyee ci la sa tuyaab bay ëppee boo delloo ci Ibnu Asir yim na ci lim na yu bari tënk ko ci ay bayit moom la wax ne wa yukrahu lamsu wa fikrun salima daaban min almasi wa illa xaruma wa karihu sawxa ka xidrin wa xasar ila axril abyaat maanaam bokk na ci liñ sit ku woor di ko def mooy ba amee soxna muy mu koy mu muy seq moom daal ci bëccëg bëccëg bi mbooree ci wàllu liñ war a seq wet googu mooy lam ci li ko laal wala muy xalaat mbir yooyu daal boo wooree dañu bëgg ngi génne sa xel ndax bu fekkee wóor na sax yow boo ci xalaatee dara du génne ci yow waaye bu la wóoree boo xalaatee wala nga am loo def ak soxna lu génn ci yow boobaam day araam ci boo ko defee ba dara génn ci yow day yàqu fi ñu koy sibee mooy mu wóor lii mënul la mënta jeexital ci yow boobaa dañ koy waaye bu la ne boo ko defee mu jeexital ci yow sax day daal nekk lu araam te ko defee bu jeexital yow ga day yàqu bu la wóoree boo seq ak lii sa soxna wala ngay xalaat xalaat yu mel nii mën ngaa dem su xalaat yi am lu génn ci yow boobaa moom sa koor day yàqu boobaa am na nu muy demee sax kafaara da ngay fay ba noppi kafaara ndax bu dee mànn yi moom da ngay kafaara bu àggul yi nag da ngay fay bu fekkee def nga loolu bu mànn yi génn ci yow moom da fay bis booba tam da nga ko kafaara tam bokk na ci sib tam mus lu am cafka mus lu am cafka lu mel ne ñu doog ak yooyu nga ciy mus loolu tam dañ koy sib bokk na ci sib tam ngay wax wax joo xam ne amul njariñ wax ju bari joo xam ne eh, amul njariñ xam nga sëriñ ñuy wax te te sax ne. Euh, woor na nga bàyyi jëpp wax caaxaan ndax dalay xañ tiyaabay koor boo woor da ngay téye sa cër yëpp benn cër moo xam lam ñu moo xam cëri loxo bi la moo xam cër bu ma doon rek nga sàmm ko ci euh, mooy yàlla bu ma doon kon daal ku woor euh, day moytu di waxtaan yoo xam ne nii waxtaan yu am njariñ rawatina nag wax lu dëgg wala jëw wala yu mel noonu moom waxtu mooy daa araam waaye bu wooree lay raw bu wóor nag maa jëlalee wax lu dëgg ak jëw ak ràmbaaj yooyu moom da daa araman comme naka jekk waaye waxtaan boobu njariñ sax dañ ko ban ci moom ñoo bëgg rek lépp luy waxtaanee wala mu koy def rek na doon loo xam ne luy jël si njariñ la wax ju mënta ñàkk wax wala bu amee temps defu dara mu jël kurusam di tudd yàlla wala muy jàng alxuraan wala muy jàng xasida wala muy saatu ala nabi daal moo ëpp tuyaab wala muy teew jotaay yu xam-xam yu mel nii ak yu ñuy jàng xasida yi ñuy jàng euh, waxtaanee xam-xam moom lañ ko sant wallaahu moo faq sawaab jërëjëf sëriñ bi kii day laaj mu ne ndax dagan na ci jigéen muy rendi waaw sëriñ Seex ci yooyu ñu sax am na yuñ ci boole mooy laal laj ko rek boo waree dañ sib ci yow nga laal laj ko rek wala nga jëfandikoo cuuraay yëpp dañ ko ba ci nàmpatal yooyu yëpp dañ ko dañ ko sib ci ku woor lii mu laaj nii nag muy ku jigéen ndax mën naa rendi waaw fuqaayu li ci wax mooy dagan na bokk ci sàtti rendi moom boo sàkk sàkk bi sàkk boobu jigéen mën na ko def góor mën na ko def fekkee jullit la fekkee jullit la daal moom mën naa rendi ren daal sàkk sàkk mooy kii ren na doon ab jullit wala mu doon ahlu kitaab zimmi doon ahlu kitaab sañ naa rendi waaye ab yéefa daal moo sañ tale lu ñu lekk waaye duñ xool kii rendi jigéen la wala góor góor mën naa rendi jigéen mën na ko fekkee ab jullit la dañoo sib daal koo xam ne ab kàccoor la muy rendi muy rendil ab jullit waaye bu dul loolu rek ak cibéer amu ci kon sëriñ Cheikh jigéen sañ naa leen di ni ko góor sañe allahumma faqi suwar kii nee moom ndax ab taalibe su fekkee dafa jaarante ak sëriñ bi am na xàq ci sëriñ bi jox aw wér bu mu war a wér wala bi bàyyi ko mu moom bi ko indil addiya waaw ci lañ ci taarixul muriid de moom mooy dafa mel ne joxe wér bi nekk sart te xam ngeen ne albindul maxuus sëriñ bi mu ngi ko jote gànnaar te sëriñ bi woote na yoon wi ca mbàkki ba mbàkki kajoor ba ñëw Touba am fi diir ba dem ci géej ba del ba dem gànnaar ci lay door a jote wér gi kon day mel ne jaayanteeg sëriñ bi si buñ ko xoolee ci wet googu rek jël sàtt jël wér di wër te nekk sàtt ndax bu doon loolu kon dañu mel na ñu njëkkoon jaayanteeg moom xëy na kon eh, te ku ne xam na ne ñoom ñooy ñooy ñi nga xam ne ñooy ñoom la sëriñ bi nu ko seen jaayante bu wér a kon daal ci tënk jëfandikoo wërdu lu baax a baax la moo xam eh, mun ci mën doon nag wërdu xeet yu bari la am na ci wu ñu tuddee al kaamil am wu ñu tuddee al xaatam am wu ñu tuddee al xafiif waaye ci mën a jëfandikoo rek baax na kon sëriñ bi daal bu nit ñëw jaayanteeg moom te mu war ko ne kii mën naa jëfandikoo wërdu yi te boobu sëriñ boobu ma amoon ci ndigal kon bokk na ci lii gën a matal taalibe gi matal seen diggante muy jox ko wér bu fekkee euh, taalibe bi sàkku na ko ci moom waaye nag ci niñ gisee ci gëstu yi ñu jot a daal jàpp nañ ne ñàkk ku ko ñàkk jox wér bi teewul jaayante gi wér na buñ sukkandikoo ci li waxoon léegi mooy mag ñi kon jaayante ak bi ginnaaw bi leen jox wér waaye ba bañ door a jaayante jox leen wér xay na ñàkk yu mu leen joxoon yeneen yu ñu daan jëfandikoo waaye ma axuus moom ci at yi yu nekkee mu teen la ko jotee te kenn ku ne xam na ne bi yu mag yi dëgg-dëgg sax bari na ñoo xam ne bi mu laataa dem ci géej gi la njaayanteeg moom kon jëfandikoo wérdo lu baax la nag moom sëriñ bi sonne na ko ci barab yu bare bare waaye mi ngi aju ci ko bëgg a jël taalibe bi daal bu ñëwee sëriñ bi ne ko soxla wérdo mën na koo jox wérdo mu koy jëfandikoo waaye ñàkk ko jox wérdo mu ko gàllankoor ba du dugg ci yoon mën naa dugg ci yoon wi jébbalu rek di jéem a roy ci jéem a sax ci ndigalul sëñ bi ba keroog mën a jëfandikoo yooyu saa yu ko a jëfandikoo jël ko di ko jëfandikoo ndax day gën a defar ak taalibeem rek wallaahu muwaffiq as kii day laaj mu ne ndax dagan na ci doom mu jël alali te amu ci ndigal. waaw rafetut rafetut ndax alali baayam jooju xëy na am na ci cër sax waaye nag mën naa am mbokk ñeneen. te boobaa mën naa mu jël seen àq ñoom kon li gën a rafet gën gën nekk ay teggin mooy bu soxlaa dara ci baayam mu dem sàkk ko ci moom ba mu jox ko ko mu door koo jox mu door ko jël maanaam a daar ci ginnaaw jël ko te yëgu ko loolu bokk ci teggin allahuma ndare nag da caa lor moom moom xele bi mën mënta ñàkk jël loolee ndax àgg na foo xam ne bu bu jëlul li jëfandikoo ko mën naa am bakkanam yam ci te loolu lu muy am na moom waaye ba àggoon foofu daal la foo xaw yoo xam àggee sañ naa jël ci alal jooju jëfandikoo ko du ci am bàkkaar waaye bu ko doxee ginnaaw nag jël ci loo xam ne nii amu ci ndigal waajuram boobu moom war na ko jéggalu te war na koo delloo alal ja xëy na nag yàgg ci jàppale ko ab sàcc ndax daa bokk sàtti eh, ku ñuy dagg ab loxoom ci càcc eh, alal jamuy jamuy jël mu bañ caa am supa maanaam benn lënt ne am na ci àq moo tax fuqahaawul maalikiya dañoo gis ne waajur bu jëlee alal doomam kenn dagg loxoom doon te doom ji jox ko ko sax ki noonu itam doom bu jëlee ale baayam kenn du ca dagg loxoom doon te baayam jox ko ko waaye nag eh, ka fa nekk yor àtte bi lislaam mën na ko taasir taasir mooy seet ab daan bu mu ko teg bu ëllëgee bu ko def bu amul ko taasir moom mi ko defoon nga xam ne def na la juun rek bañ koo defati tuub ko te alal ji bu fekkee ma nga fa mu delloo ko waajuram ndax alal ji da caa da ko bokk ñeneen kon daal lu ma ta moytu la daal ndax jël jël alal sa te joxul ci ndigal day mel ne yaa ngi jël alal sa àq àq say morom te loolu bokk ci ngor bokkul ci ak njub wallaahu muwaffiq li sawaab. jërëjëf Serigne Bou Cheikh kii moom day laaj mu ne koo xam ne dafa faatu bàyyi fi ay doom yu ak ay magam yu góor wala rakam yu góor mu ne kooku nan lañ ko miraas ñaareel day ñi nga xam ne ñoo séddale miraas loolu day am. cër boo xam ne naan yii ñoo ko moom muy laaj ba ne bi ko wax day mel na ñaari ñaari bànqaas la ci njëkk mooy ay doom yu ànd ak mbokk moo xam mbokk yu mbokk ak seen waajur ndey ak bàyyi la wala mbokk bàyyi la wala mbokk ndey rek ndax xeeti mbokk yooyu rek la moom benn muy shaqiq asiqa nga xam ne ñoo bokk ak bàyyam lépp wala ñu al ixwatu lil abi muy ñu bokk baayam baay rek wala ixwa lil ummi ñun ñëpp dañ doon na ñëpp am na muy demee ñu doon waaye ci masala bi moom duñ doon mbokk du ci doon ndax doom bu xasee teew rek day yiir mbokk mel ni mbokk du seen kon ci masala bi ni mu laaje alal bu fekkee doom yi dong dong ñoo fa nekk ñu mën a doon kon doom yi ñoo yiir mbokk yooyu dootu ñu am dara laaw mu ñu nekk doom yu jigéen moom ab naa la wax moom naa la nag day mel ni doom yu yi nekk de doom yu góor daal wala doom yu góor yu ànd ak doom yu jigéen kon mbokk yi dootuñu doon fekkee doom yu jigéen la fi bàyyi nag moom doom jigéen moom jeexal alal jeexal alal dañ koy jox ab cërëm rek la ca des nag boobaa mbokk yi doon na ko ci temps yi kon dañuy xool doom yi fa bàyyi yan xeet yan xeet doom la fekkee ay góor kese kese la kon mbokk yi duñ doon dara fekkee ay góor yu ànd ak jigéen la tam mbokk yi duñ doon dara mu des nag bu fekkee doom yu jigéen yi kese kese la waaw moom. mbokk yi am na dañ doon ndax doom yu jigéen yi dañ leen di seen ceeb benn jox la nit su wala sulusaani la ca des ñu jox ko mbokk yi di benn pàcc bi ci laaj bi mooy application yi jëfandikoo ko ci miraas maa ngi waxtaan suñu affaire léegi rek sax al imaam mu ne ma loolu ko xewal bu ñëw la sax ndax miraas xam-xam rek la xam-xam buñ jàng rek la te application yi tam xam-xam la kii miraas bu gëstoo ba xam ne application bi dëppoo dëppoo naag ni ñu tëralee masala bi loolu kon da koy jàppee ki ni ñu jëfandikoo euh, machine calcul ci miraas ñoo yem rek mooy application bi dañ koy jox ñu war a doon ak alal ji ñu toll rek ñu séddale la ko séddale la lu gaaw gaaw boo xam ne ñaare njumte du ci am loolu nag bu amee ci euh, ay jumtukaay yoo xam ne bu ñëwee ci biir jullit yi mën nañ ci mën nañ ko jëfandikoo coot googu mën nañ ko jëfandikoo seen diine ne jàppandal seen mbirum diine sax ne jàppandal seen mbirum diine sax mu ngi mel ne moon rek xam wax heure julli tënk ci montre bi xam waxtu julli loolu xéewal gu rëy ndax bu njëkk bu mu amagul ci jant bi la daan xool ak kere yeeg yooyu waaye bi montre amee léegi daanaka mën nañu tënk heure yu julli yi ak heure yu ndog yëpp mën su kon day mel ni xéewal bu yàlla defal julli lii rek kon ñu xéewaloo ko wàññiwul dara wallaahu maftu sawaab kii day mu ne ndax dagan na ci ab mu dem ci kudul ab waaw sëriñ Cheikh rek fekkee dafa jublu ñaanal ko digganteem suñu borom loolu moom jaaduwut jaaduwut ndax ab ab yéefar bu ñaanal suñu borom du ko may suñu borom euh, du guyu ñaanu ab yéefar maa doxaawul kaafirina illaa fii dalaalin suratul xaafirin loolu la ko yàlla wax ab yéefar bu ñaanal yàlla yàlla du ko may kon day mel ne ab jullit am na sañ-sañ seq ak ku dul jullit ay relation ci wàllu àdduna rek nag waaye si diggante ma boroomam moom mu jaarale ko du jullit ndax loolu sax bu amee day mel na mën naa dem ba génne ko ci lislaam moom jullit boobu ndax bu demee ba jàpp ne kii moom gën a jege yàlla ba mu ko ñaanloo te moom mu ko gën a ki gëmul yàlla kon day mel ne moom jeen dina nekk waaye nekk ci lislaam ndax lislaam moom dañ gëm ñooy xas dugg ci lislaam moom mënoo yama ki dëgg duggul ci lislaam boo leen rek sa sa wala seen ngëm lu ci manque kon lu ma tam moytu xanaa léegi li ci xew léegi mooy dem ci yenn réew yi nga xam ne duñ julli di sàkk foofa ay mbir loolu nag du ñaan loolu jabar ak jabar dafa am réew yoo xam ne duñ réew yu julli siiwee ak ja ak jabar ba yenn jullit la ñu dem fa di sàkk loolu loolu nag ku koy def yaa def lu araam ndax jëm ñu jabar rek moo araam kon rawatina nga dem di ko sàkk koo xam ne yàlla kon daal ab jullit bu jaaxlee wala mu am soxla li baax moom mu du ci moroomam jullitam rawatina koo xam ne am na ci yaakaar ci ak baax mu ñaanal ko wala moom ci boppam mu wéet ñaan diggante ak borom wax na ci alfaan ne waxal su jaam sama jaam yi ne saa saa rek bu ujibu daawatillaahi isaa daani ku ma ñaan te sàttanteeg e, sàtti ñaan ma muyu la kon ab bu mu xel ñaan diggante ak borom la góorgóorlu rek bu ba xeet boppam ci ñaan ñaan ñaan ñaan boppam it mu sàkku ndimbal ci jullitam waaye àgg na di ko sàkk ko xam ne du jullit moom loolu mën na ko génne ci lislaam sax wala ayaas billah kon lu mat a moytu la nañ xam daal relation bu war la guddee di ko daal nañ xam ne am na suñu njariñ ñu bañ ko weesu la cadre boobu rek wallaahu ma faqna sawaab kii moom nee na dafa amee woon borom miraas boo xam ne mi ngi xaw naa yàgg nee na 1978 la woon booba ñu ko xayma woon ci cent cinquante 000. mu ne ndax bu ñu demee ba ci jamono tey jii dañ koy xayma xaymawaat wala dañ koy bàyyi rek ci njëggam tollool maanaam bu doon a pàkk daal bu ñu xayma woon ci cent cinquante mille ci mille neuf cent soixante-dix-huit ñu ñëw ba ci ren ndax dañ koy bàyyi ci njëg boobu wala dañ koy xayma ci jamono ji ñu toll nii. waaw sëñ Cheikh jamono yi miraas jamono yooyu lañ ko xayma woon ba ne nii lay jar jar ba miraas moom moom ñu tënk xëy na la sa zone rek mooy ka waroon a joxe loolu joxewu ba jamono jàgg lool loolu doo ko mën a joxe teel lañ doxantoo rek lañ joxe ak moom ginnaaw ba ñu koy miraas jamono yooyu foofu la toll woon moom kon moom loolu rek la mën a joxe loolu lañ doxantoon ba ba tënkoon ko ci këyit ba kenn ku ne xam na ko bor bi nga xam ne da nga ko yoreel nit gaal ak mu yàgg-yàgg moom boo koy fay la ngeen waxantoo da nga koy fay nag na mu toll woon da nga koy fay ndax xaalis moo demee noonu day yëgg wàcc bu wàccee xëy na moom yow muy fay lay doon sa intre waaye bu yëgoon itam masalan wàccee bu yëgoon itam mën naa am loolu intérêt ngay fay moom kon duñ ko xool foofu dañu xool rek lam la woon ni mu toll rek waxtu fay fay jotee mu fay lu toll noonee bu ne nag day menace moo xam lijjantee guñ ko woon daa yàgg lool rek waaye tax bu ñu lijjantee ko moom jamono yi ñu koy lijjanti nii rek dañuy lañ koy xayma moom li muy jàdd nii ñu xool ba ko borom borom menace ba ko jógee ñaata la pàcc ba doon jar moom te jaayee guñ ko woon booba dañ ko xool jamono yooyee jamono yi ñu miraas nii la ñuy xool li mu am léegi ñu jaayee noonu waaye ni mu waxee moom daa mel ne kon miraasoo nañ ba nopp ba mu xam ne moom pàcc bi fanweeri junni dafa war a la war a joxe ay na ko joxee guddoon rek kon lu mu yàgg yàgg ko joxe nag fanweeri junni yooyu lay joxe bor boobu la la amee la la war a joxe mu su ko laaj bor boo xam ne nekkul teewloo sax wallaahu ma fa jërëjëf sëriñ kii moom day laaj mu ne lan moo wutale diggante ab jullit ak ku gëm yàlla muslim ak mu'min ak kan moo ci gën a kawe dara ci ñoom ñaar waaw sëriñ Seex de baat yooyu bu dee ci ci ci ci wolof moom daanaka amuñu dàqle googu mag a mag jullit rek la ñu wax mu génn jullit rek jullit mooy ku waaye bu dee arab la dañ ko tàggale arab dañu wax al muslim ak al mu'min dañ ci dolli sax al muhsin dafa mel ne am nañ am nañ ak tàqale ñoom ñoom baat yooyu am nay tàqale ndax ci aaya ji nekk sóoratu mu jub sóoratul xujuraat gis nga suñu borom mu koy wax ne xaalatul arabu aman naa qul lam tu'minu walakin qulu aslamna wala maa yadxulul imaanu fi qulubikum yéen araab yi mooy yéen yi dëkk ci àll bi daan ñëw Madina da ngeen waxal gëm ngeen waaye gëmu leen nee leen dugg nañ ci lislaam bi waaye gëmagu leen ibnu kasir bi muy tafsir aaya boobu da caa wax ne man si naa jëriñoo ne imaan muy gëm bi na ci biir xol bi moo gën a xóot gëm bi na ci kaw cër yi muy lislaam lislaam mooy jëfandikoo cër yi cër yi jëfandikoo gi muy jëfandikoo li yàlla sant imaan nag mooy leen ci xol bi bu fekkee yaa ngi jëfandikoo ci cër yi dañ la sant nga di ko def te nekkul sa xol ak muslim lañu tuddee bu demee ba ca xol ba nag ñu tuddee la al mu'min kon nday mel ne ay dara dara yu dara yu wuute la ndax buñ sukkandikoo ci addis bi nga xam ne mooy addis jibril bu siiw boobu ñëwee di laaj yonent bi saa sallam mel ne kuy jàng si moom ba mu koy laaj la mu ko njëkk a laaj mooy mal mal mal mal islaam lan mooy noonu la ko tegale woon da ko njëkk laaj lan mooy lislaam yonent bi saa sallam leeral ko lislaam mooy ponk yu juróom mu laaj ko lan mooy imaan mu del ko leeral lan mooy imaan mu ponk juróom benn ponk yooyu gëm yi ñu war a gëm mooy gëm yàlla ak yonente bi yonente yi ak malaaka yi ak euh, gis penc ci ak ak dogal muy yooyu ñu war a gëm mooy liimaan mu dellu ko laal al ihsaan lan mooy ihsaan mu ne ko an ta'budallaha ka annaka taraahu wa in lam takun taraahu fa innahu mooy ixlaas rek sellal yàlla bi ngay def nga def ko ngir yàlla kese kese mel na bi mu koy def sax yàlla daa jàkkaarloo yow nga jàkkaarloo ko mu lay xool nga di ko def noonu nga koy nga ko war a sellale nga sellale ko noonu kon suñu seex dañuy gis ne jibril alayhi salaam dafa tàggale ñett yooyu ci laaj boobu da ko njëkk laaj lislaam laaj ko imaan door ko laaj lixsaan ñu sukkandikoo dina kon wax ne ay darajaat bi wute la islaam mën naa ñëw moom mooy jiitu ndax bu ñëw imaan sax mooy jiitu waaye balaa mën a wér lislaam day ñëw la tax yàlla noonu ko dëgg dëgg nag mooy ihsaan am ci kon ñetti mbir lañ yoo xam ne mën nañoo tàggali ko waaye dañoo tegaloonu ci ay daraja islaam mooy jiitu imaan tege ca ihsaan doon ñëw wallaahu moo faqi sawaab kii day laaj mu dafa bëgg daal ñu firil ko waxi suñu borom bi wax ne man kaana aduwan lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa jibrila wa mikail ak lan moo tax mu tudd jibril ak mikail rek te tuddul yeneen malaaka yi waaw sëriñ Seex de aaya boobu mooy aaya juróom-ñeent fukk juróom-ñett ci sootu baqara moog aaya ba ko jiitu muy xul man kaana aduwwan li jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika ak aaya bi ñoo bokk lu ñuy wax ulama wax ne tax mu wàcc mooy yahudi ñoo ñëwoon ci yonent bi saa laaj ko ne ko yow day yonent bi fu jaar bu nekk am na malaaka bu ko daal ñëwal yow man man man malaaka mooy ñëw di la jox ay xibaar ak di jox di jox di la jox digal jéego ci yàlla mooy leen jibril mooy malaaka bi may andil waxyu ah ñu ne ko yow de kon mënuñu ànd ak yow ndax jibril mooy suñum noonu mooy suñum noonu ndax moom mooy santaane xeex mooy santaane xeex kon suñum noonu la boo ne woon mikaayil sax de mikaayil kon sax ñu mën a ànd ak yow de ndax mikaayil moom mooy malaaka mbirmaande mi mooy wàcc taw bi bi ñu waxee loolu nag suñu àddu àddu nag xamal leen ne eh, koo xam daa noonoo jibril noonu mala malaaka yi rek ngaa noonu yàlla noonu malaaka yi noonu nga yàlla noonu malaaka yi nga yàlla man kaa naa doon lillaahi malaaka yi fay ne ku noonu malaaka yi noonu yàlla la kon mën leen ne da ngeen gëm yàlla ba nag loolu noonu malaaka tudd gi tudd jibril ak mikaayil nag moom la ulamaa usul di wax al atful aam mi al xaas aw atful xaas al aam ndax malaaka aam la aam la dafa matale biñ ne malaaka rek waaye nag ginnaaw mbir mi ñuy wax daanaka ñoo leen tax a jóg dëgg dëgg ñoom ñaar ñoo tax aay wàcc moo tax mu beral leen loxo beral leen tudd leen seen tudd bopp ndax jibril mooy dox diggante suñ borom ak yonente yi di leen andil wax yi moom la dénk muy wàcc taw bi ak yërmaane kon suñ borom di leen xamal ne euh, bu ngeen noonoo mikaayil yeneen ngeen noonu jibril ñooyam ek noonu Mikaayil maanaam Jibril noonu Mikaayil la te nag nekk seenum ñoom ñoom ñoom ñaar noonu yàlla la kon daal mu ci tënk bëgg a xamal yi leen bu ngeen bëggee gëm yàlla daal faaw ngeen gëm malaaka yépp bañ cee génne kenn bu ngeen sepp kenn rawatina Jibril mi nga xam ne moo gën ci malaaka yi sax ngeen bëgg ko sepp nag bëgg wax ne gëm ngeen yàlla gëm malaaka yi loolu wax waxi làmmiñ rek waaye nekkul luy am kon sëriñ Cheikh tudd gi mu tudd Jibril ak Mikaayil ginnaaw bi mu tuddee malaaka yi daf leen a gën a beral euh, seen tudd bopp foofu ngir ñu xam ne ñoom ñu ràññiku leen ci biir malaaka yi te ku ci noonu kenn rek noonu nga moroom bi ku leen noonu ñoom ñaar noonu nga malaaka yépp te ku noonu ak malaaka yi noonu nga ak yàlla bala ngaa mën a gëm yàlla bëgg ko yàlla bëgg la aw da bëgg malaakaam yépp bañ cee génne kenn wallaahu muwaffiq as-sawaab kii ba tey ci alquran nee na waxi suñu borom wax ne wala tuwaaxiduhunna sirran illa an taqulu qawlan maarufa mu ne loolu lan lay firi waaw sëriñ Cheikh de loolu ab dog la ci aaye ñaar téeméer rek fanweer juróom baqara nga tàmbalee ci wala junaaxa alaykum fi ma bihi min xidmati nisaai aw fi anfusikum fi anfusikum alima allahu annakum satazkuruhunna satazkurunahunna walakin la tuwa'iduhunna sirra illa an taqulu qawlan ma'rufa li ko itteel ci bi kon mooy la tuwa'iduhunna sirran aay day wax rek ne jigéen ñi nga xam ne ñooy nekk ci en idda di iddaw moo xam seen borom kër dafay jóge ñuy iddawu ñooñu góor ñi bu ñu leen labat bu ñu dem ñoom bëgg bëgg leen takk bu nekkee ci idda ji nañ leen bàyyi ba idda jeex ñu door a wax ak ñoom waaye nag diggante góor jigéen yàlla def na jigéen seen diggante loo xam ne xay na du ñàkk yenn góor ñoo xam ne dañ xalaat bëgg a takk ñu mel noonu mooy leen nag xalaat ngeen ko xalaat seen xel rek loolu moom yàlla doon jàpp bàkkaar waaye li ñu bañ daal mooy ngeen wax dem waxante ñoom wax ju wér wér wala tuwaa na ma du leen daalante ñoom dem fekk jigéen ju iddaw borom këram jóge fi mu iddaw ngay wax ak moom ne ko bu sa idda ji jeexee dama lay takk ñu bëgg loo may biir ji loolu la ñuy tere ci aay kon bu leen waxante ñoom ci secret wan neen dañ leen bëgg a takk dàqoonte wuute nag ngeen gaaral leen daal ci anam goo xam dañ xam ni seen xel nekk na ci ñu jeexalee idda ji bu bu ko yàlla dogalee euh, sëy ma dox seen diggante ñu may leen ñu maye leen waaye li ñu bañ mooy leeral ko fësal ko ci biir idda ji loolu la aaya bi tere foofu kon mooy bu jigéen tolloo foofu di iddawu daal nañ ko bàyyi ba idda ji jeex ku bëgg ñu may la ko nag nga doon ñëw labat si wala mat seen nag moom boobaa moom am na am na am na taxawaay boppam soxna si bu nangoo ay kilifaam nangu yenn sàtt yëpp daje ñu daal la ko fasal waaye kenn du ko sañ fas biir idda gi fi jeexu kenn du ko sañ tam wax wax bu leer nga xam day mel ne yow rek lañ koy may bi fi jógee bu bu idda jeexee kenn sañ ko def ko def dañ ci am bàkkaar te buñ façon ci biir idda gi itam sëy bi du baax dañ leen tàqal wallaahu moo fiq la kii moom day laaj mu ne ndax julli ci ay armeel dana baax waaw sëriñ Cheikh da ci armeel boo delloo ci muxtasir muy xale yi limaal na ko ci barab yi nga xam ne sëriñ Cheikh julli sëriñ Cheikh julli ba muy lim barab yi sëriñ julli da caa wax ne wa jaasat bi marbadin bi marbadi xana baqarin aw xanam ka maqbara ka maqbaratin walaw li mushrikin wa ma wa mahajjatin wa majsara bi sàrt in ummi nag mi ne na jës maanaam barab yooyu yëpp bu mu ci mën a doon rek bu la wóoree sobe nekk ci muy fu ay ay muy géttu xar wala géttu ay nag wala lii mu laaj ni muy ay armeel donte ñu fa suul bi jullit sax ba ci fi ñuy defaree jur gi maanaam fi ñu leen di feesee yooyu wala ci digg aw yoon wala sax ab sën barab yooyu yëpp day nuru yoo xam ne nii boo xoolee si xel ak day mel ne muy faa waaye bu la wóoree sobe néewu fi moom sañ dafaa barab boo ci gis loo xam ne sax amul sobe rek sañ dafaa julli kon sëriñ si yàlla julli ci armel ci xasabal fiqhil maliki yi moom dara newu ci sañees na ko sañees naa julli ci biir armel bu la wóoree ne sobe néewu fa bu la wóoree ne sobe na sobe moom fu nekk da sañ faa julli moom dan sëb néeg la sax sobe na ca ba sobe si nekk da sañante xaw di julli rawatina nag beneen barab boo xam ne du mel noonu kon liñ ci sàppalaat mooy na na na la wóor ne sobe amul fa waaye bu bu ci loolu amul rek sañ nga faa julli même nit ki barab yooyu mu tudd yëpp wallaahu muwaffiq sawaab moom day laaj mu lan mooy àtteb li lenn ci nit di def bu dee timis dañu ci buntu jàkka ji di xaar bañ su nodd gi daanoo ñu door a dugg ci jàkka ji waaw sëñ Cheikh ko mën a ci liñ jotagul yër de ndax xëy na ñu koy def euh, li ñuy métti la mooy dugg ci jàkka ji wala jumaa ji te nu ñu def ñu taxayul masjid taxayatul masjid waaye ñoo xam ne waxtu woowu moom boo ko duggoon ci jàkka ji wala jumaa ji tam boo deful taxayatul masjid doo ci am bakkaar kon ñëw taxaw ci buntu bi di xaar ba ñu nga door a julli nga door a dugg moom xëy na bu ko defee si coobare nii dara néew ci moom ndax kenn terewul la nga def ko waaye jàpp na day yoon loolu la ñuy bañ jàpp ne suñu dugg ci jàkka ji wala jumaa ji te noddu ñu rek loolu la moom te la taa yooyu ñëwee sëñ ngaa dugg bu dee waxtu wax na sëñ ngaa naafila nga def tahiyatul masjid mooy ñaar rakkaa yooyu ngay julli bu fekkee du waxtu woo sëñ naafila mel waxtu ñu toll ñu doon julli ba sëlmal nga ñëw toog rek bu fekkee eh, nga toog mel noonu bañ noddu nga jóg julli waaye ñàkk bañ a diwaan wala jàkk ji ngir nen ne boo duggee doo mën a def taxit masjid rek loolu moom eh, te kenn tegula ko nu moom wallaahu muwaffiq lis-sawaab kii moom de laaj mu ne lan mooy àtteeb ñaan ci sujjóotu julli ak ndax ñaan googu mën nañ koo def ci beneen langue bu dul langue arab waaw sëriñ Seex de sujjóot barabu ñaan la barab la boo xam ne ci julli boo fa tolloo da ngay ñaan ba boo delloo ci xale yi sax ma ngay wax ne wa daa bi ma ahabba wa in wa in li doon ñaan boo sujjóotee mën ngaa ñaan loo sopp loo bëgg rek doon ci muy wàdd na ngay ñaan sax xéewal nga bëgg yàlla dafa la ko àdduna sax sañ na koo ñaan ci biir biir su jóg boobu sañ nga cee ñaan seen mais moroom jullitam loo bëgg mu defal ko ko wala loo mu am ko nga ñaanal ko ko sañ nga ko biir su jóg kon Serigne Cheikh su jóg barabu ñaan la boo xam ne nii fi ci toll mën ngaa ñaan loo bëgg a ñaan mu wax ko ci wolof nag wala ci beneen langue bu du arab gis naa ne dara néew ci ndax mu fekkee ñaan rek la te mënu ko wax ci beneen beneen luxa mën naa jëfandikoo loxo ba mu xam ñaan jëla yàlla la mu a ñaan waaye nañ bàyyi ne tënku ci ñaan yi nga xam ne moo jóge ci yéen saa sallam daa gën moom ñaan yi nga xam naa ko andi fekkee xam nga ci yan nga jëfandikoo ko daa gën wala ñaan yi ñu ñëw ci biir alxuraan yooyu moom daa gën ci kuy ñaan boo ko mënul nag mën ngaa ñaan ci euh, làmm yi nga mën a wax waxee nga ñaan te say soxla yàlla moom dëgg gën làmm yi yëpp te moom arabam yenn làmm yi yëpp moo leen sàkk kon nag boo ko ci ñaan rek mën a laa wéy daal sëriñ Cheikh su jóot la boo ci tolloo mën ngaa ñaan loo bëgg ñaan mën nga cee ñaan si mbokkum jullit tam bokk na ci li ñu ci wax nag subhaana rabbiyal aala allahumma ighfir lii bokk na ñaan yi gën a siiw wallaahu muwaffiq lis-sawaab kii moom day ne ndax nit naa xam yàlla wala àgg ci yàlla te du jàng waaw sëriñ xam naa day mel na jàng de yoon wi gën a gaaw mooy yoon wi gën a gaaw ci àggal nit ci wa taala moo tax sëriñ bi radiyallaahu taala anhu dénkuñu ñun taalibe yëpp ñu fonk jàng ndax moom gis na ne bokk na ci yoon yi gën a mën a àggal nit ci yàlla mooy taqa taqoog ku àgg ci yàlla nit ku baax ba noppi ak ak xam-xam boole ko xam-xam moom lay wax ne man talabal wusula lil jalili fal ya'tasim bi sunnati rasuli bi an yulaasima mutian la yamil fi zahiri mubatin an sabil yaquduhu bil ilmi bil ilmi wala ibada kama yurabbi bi tarkil aada kon gis nga ne foofu daa wax ne sëriñ bi ngay àndal pour mu yóbbu la ci yàlla ci ñaari anam dong la ko mën a jaare mooy mu jaaral la ci xam-xam xam kan mooy yàlla ak tàggal la ci jaamu yàlla day mel ne ku àgg ci yàlla te nangoo koo jaare ci xam-xam nangoo jaamu yàlla ah loolu de xëy na suñu borom bari lay may nag mën na ko may jaamam waaye yoon gën a dëppoo xel ñu gën koo nangu daal mooy nga jaar ko ñaar yoon yooyu benn ci nga jaar ko ci yoon xam-xam jiital xam-xam di ko boole jaamu yàlla sëriñ daal loolu leen sant di leen sant taalibe yi daal mooy nañuy sàkk xam euh, ko boole yàlla bëggee àgg ci yàlla sëriñ bi xam naa laaj bi la ñuy mujjee mu ne ndax bu imaam bi xutba ci ajuma dana lan moo tax bu imaam bi dee xutba xutba nit ñi di bi di jàkkaarloo moom waaw sëriñ Cheikh da jàng bu ñu xutba bu imaam xutba bu ajuma liñ santaane mooy ñëpp toog di ko déglu donte déggoo ko sax waaye ngóor na ci biir xutba ba nga daan kell donte la tam wax loolu daal lañ sant biir xutba ndax addis yu bare ñoo ko saxal ñoo saxal ne bu ilimaan bu kenn wax bokk na ci addis boobu nga xam ne eh, ubay ibn kaab moom solo woon ne am na waa ju ma sa laaj yonent bi saa sallam nekk bu ñu xutba ndax sañ na maa wax mu ne ko isaa sami'ta imaamaka yatakallam fa ansit hatta yafraxa boo déggee sa ilimaan di xutba na ko dé sa ilimaan di xutba nga koy dégg na nga na nga ne cell ba mu noppi ñu ne kon fekk yaa ngi déglu xutba su soño wax waaye sax fu xaaw dañ koo yaatal ci ne boo déggul xutba bi sax soño wax rawatina ba koy dégg am na beneen hadiis ba tam boo xam ne Ibnu Abbaas radiyallaahu anhu moo ko solo waxoon na Yonent bi sallallaahu alayhi waxoon na ne man takkal la ma yawmal jumaati wal imaamu yaxtubu fa huwa kal ximaari koo xam ne ilimaana ngi xutba xutba ajjuma ngay wax nee na yaa xayawaan wu yéen a boobu kenn bëgg mel ni moom kon daal sëriñ sa tënk buy xutba ajjuma li ñu mooy nga toog di ko déglu wante xamoo li ñuy wax wala dégg déggoo li ñuy wax it bul wax allahuma na baat yu gàtt a gàtt lu mel ne wax amiin wala sa moroom tisooli nga nga ndokkal ko yooyu daal sa man baat bi gàttal sañ nga wax wala jéggalu wala tudd yàlla te gënul sax ba mënu ko ñàkk daal waaye di jàng alxuraan wala xasiida moom ci biir xutba bi bokk ci teggin bokk ci liñ santaane boo amee mën a julli gi ajjuma bu wàccee tam tuyaab bi manqué na moom xëy na mënuñu ne euh, amoo julli gi ajjuma waaye tuyaab boobu day manqué moom day manqué nag moytu ko mën naa moytu bu baax a baax xutba bi daal nga déglu ba xutba bi àgg nga ànd ak ilmaan julli gi dafa ci kaaba dama sëkk sëkk am naa wëlbatiku ñu wëlbatiku jàkkaarloo moom nag loolu teggin la bokk rek bu ilmaan da xutba ñu wëlbatiku jàkkaarloo ndax ñu gën a a xam li wax gën koo teewlu ci teggin la bokk waaye ku def itam dara nekk ci nag liñ la sant daal mooy déglu waaye jàkkaarloo moom moom dañ koo bëgg rek boo ko defee baax na boo ko defee itam dara nekk ci wallaahu ko faqi sawaab jërëjëf sëriñ bi kon mel na ni agsi nañ fi waxtu yi cate xanaa ginnaaw bu ñu sante gërëm la di ñaan suñu borom mu dëgëral te kattanal la ñu bàyyi la nga tëj rek ñu door a yëkkati jataay bi waaw sëñ Cheikh dañu ngi dellu di santaat suñu borom subhanahu wa taala ñu defal ñu tawfeex bañ fekk weer ba toll fii ñu toll ñu a góorgóorlu ko su néew ñu fas yéene ko àggale si ni ñu ko tàmbalee mooy sellal gi ma sëkk mboolem lu baax lu ñu daan rek ñu jéem koo yokk parce que yéen ko àggale ci anam bu rafet yàlla ñu caal jëmbale dellu di ñaanal kilifa yi suñu borom sàmm leen sant waa daayira bi seen liggéey bi ci anam bi ñu jàppale ñu jàppale ñi seen biir koor ak ndogo yi yëpp ñu leen ci ñaanal sant képp lu jàppale tam di gën a soññi mbokk taalibe yi di fi jàpp xam ne bokk ci liggéeyal sëriñ bi ak ñu yàlla gën ba tawfeex yàlla may ñu fekkewaat suñu kilifa rawatina Cheikh Mahamadou Mountakha ak kilifa yi ne suñu kanam yëpp Yàlla bàyyi leen suñu kanam wa axiru da'waana alhamdulillahi rabbil alamin jërëjëf sëriñ Cheikh Moussa Hassan moom mi nga xam ne moom la ñu àndaloon ci jataay bi mu doon tontu laaj yi nga xam ne mu ngi bàyyi ko woon ci mbokki taalibe yi te indi ko ci anam bu leer anam bu yaatu te mat yàlla na yàlla fay ko te dëgëral ko kon ñu ngi ko sant ci turu daayira bi cant koo xam ne cant gu yaatoo yaatu la kon suba ñu ñi ngi waxtaane dunduk sëriñ Touba radiallahu anhu yan bind lañ ci mën a jànge Serigne Mame Mor Mbacke Hamdi moom moo koy def niki noonu tamit képp koo xam ne bëgg naa indi ay laaj mën naa jokkoo ci numéro yi 77 678 57 66 77 678 57 66